다 성화가 있어요. 아니요.

بنورهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم العمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات

Mwene, mwene, mwene, mwene ne wijou li. Awa, e, kime do li? Dulu ba? Alama ni. Wane yo wa wa wa. Wane yo wa wa wa. Wane yo wa lima muratib bi ak mbooleem ilimaan yi nekk mi jiite mbooloo mi ak alaaji wilaan ak baay alaaji wilaan dana yóbbuwaale mbooleem délégation bi dana yóbbuwaale mbooleem délégation bi bàyyeekoo ndukumaan ay kilifa yu baax di ay kilifa yu baax am na ñu bàyyeekoo ngëtu am na ñu bàyyeekoo ngëtu suñu baay ju baax ja baay Aliou Dia suñu baay ju baax ja baay Aliou Dia am na ñu bàyyeekoo mbenn juma am ñu bàyyeekoo ba mbenn juma am na ñu bàyyeekoo këyi am ñu bàyyeekoo këyi am ñu bàyyeekoo euh, Kébé. am ñu bàyyeekoo Kébé. am ñu bàyyeekoo Mari Bugu. am ñu bàyyeekoo it Mari ñu bàyyeekoo ci yeneen i dëkk ba jàmm gën. am ñu bàyyeekoo ci yeneen yi dëkk ba jàmm gën. lu mel ni jagle. lu mel ni jagle. lu mel ni xende. ak xende. ak sotokoñ. ak sotokoñ. ak dëkk yi wër foofu yëpp. ak dëkk yi wër foofu yëpp ca Ndokumaan. ay kilifa yu baax. yal nañu leen yàlla fayal. yal nañu leen yàlla fayal. barkeb yonent bi sallallahu wa sallam. ci barkeb yonent bi sallallahu alayhi wa am na suñu mbokk yoo xam ne ñu ngi bàyyeekoo wàllaa dex. am na suñu mbokk yoo xam ne ñu ngi bàyyeekoo wàllaa dex. gis nañ fi waa Saama yi. gis nañ fi waa Saama Njaayeen yi. nga xam ne projet bi seen dëkk lañ ko njëkk a nga xam ne projet bi ne seen dëkk la ko njëkk a lancé. keroog bi ma ko lancé foofa wax ko. keroog bu ma ko lancé foofa ba wax ko. ñoom la njëkk a jox leetar. ñoom la njëkk a jox leetar. seen ilimaan ju baax ji. alhaji tamsir njay di alhaji tamsir njay mo njëkk ne man sumina sama mbum dama koy jaay mo njëkk volontaire ne sumina sama mbum dama koy jaay ñu def ko ci procès liggéey bi ñu def ko ci procès liggéey bi mi ngi nii ànd ak mohammed njaay ne mi ngi ni tok and ak mohamed njaay kon nag boy wote lu jëm ci dara ne boy wote nak lu jëm ci dara ab serigne dara njëkk summeekul yalla ab serigne dara njëkk summeekul yalla tayore dara ni yow tayore dara ni yow lola dal na xel dal na xel imaam Tamsir jërëjëf. ne imaam Tamsir mi ngi lay wax jërëjëf yal na yàlla fay. ci barke bi yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. suñu mbokki waa Kouthia yi ñu ngi nii ànd ak imaamu ratib bi. imaam Jimma Ndiaye. imaam Jimma Ndiaye. imaam Mouhamed Lamine Ndiaye. imaam Mouhamed Lamine Ndiaye. ñu ñëw ànd ak seen délégation. ba tey tamit tabaarakallah waa kër Birane Khoroja. ba tey gis na fa it waa kër Birane Khoroja.

kilifa gi it yónnee na fi mbooloo ñu ñëw gi it na mbooloo ñu fekk si ko. Abdul Karim ak ñi mu ànd ak ñëpp. tabaarakallah tabaarakallah. Euh, euh, suñu mbokk yi nga xam ne kër Sambara fi lañ bàyyeekoo. suñu mbokk yi bàyyeekoo it kër Sambara fi. mbooleem Saalum daal fu nekk rek ñu bàyyeekoo. mbooleem Saalum ne fu nekk rek ñu bàyyeekoo ne fa ñëw. bàyyeekoo Ñàpp Balla. ñii bàyyeekoo Ñàpp Balla. ñii ñàpp sanci ñii ñàpp njaañ kër maamu ndumbe kër tamit def nañu mbolo mu bari dagale lu bari ñom tamit andi ko yalla na fay leen yiw eh, tabarakallahu suñ mbokk yi leen jaxate suñ mbokk wa jaxate yi ñom nit ñew nañu ñoben mat ñom tamit ñew nañu waa Wambajo, Sen Imam mbaajo seen imaamu ratib sax moo ñëw Sen Bolo, ratib ne moo ñëw ànd ak seen mbooloo yal na yàlla fay ñëpp ñëw waa kër ngada yi tamit ñëw nañ waa kër ngada yi tamit ñëw nañ waa faas ñi loori ñëw nañ waa ngindoori sax tamit ñëw nañ waa ngindoori ñëw nañ yàlla yàlla monsieur maire kon nag moom tamit moo ñëw nii non monsieur le maire moo yegg si léegi sëñ bi neen fadal monsieur Ngagne Diop tabarakallah sëñ bi nee na nga yegg si bisimilah macha allah. ñëw nañu ànd ak mbooloo bu baax. ak kër Mandongo. ak ñu wuti. ne ñoom ñëpp ñëw nañu. ngir andi seen ndimbal ci daara ji. yal na yàlla fay ñëpp ci barke yonent bi. wa afi tamit ñëw waa ma sha allah kër Birame Khorodio it ñëw nañu sen imam ratib bi moo ñëw wa ñëw nañu waa misra tabarakallah wa nee na yal na yàlla fay ñëpp mu yëkkati ko teg ko ci loxoom moom danañ ko jox mu wax ci projet bi wax ko ci français ak ci anglais wax ko ci bu koy wax ci olof koy nee na mi ngi nuyu gan ñi. di leen dalal ci jàmm. di leen bi sedd. mi ngi ñaan yàlla na dal bi sedd. te woom. te woom. te barkeel. yàlla na ñu ko yàlla defal. ñu jàng faatiha. nee ñu jàng faatiha benn yoon. آية الكرسي آيات الكرسي قل هو قل هو الله أحد فلق الناس فلق الناس صلاة الفاتحة صلاة الفاتحة dugal suñu aaju yëpp ci biir ñu labal suñu aaju yëpp ci biir allahuma yàlla suñu borom nangu ne balaa ñu naan allahuma borom biñ koy woowee noonu yàlla na nangu lépp nee na bismillah fatiha benn yoon ayatul kursi yu fallaqi ak naasi benn bu ko nekk ànd ak basmala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 ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبكي نيجي جولي صلى الله عليه وسلم di sant yàlla di ko gërëm di ko bàkk di ñaan moom buur bi yàlla mu gën ñoo dolli ay xéewal ci place bii ñu toog tey muy palaasu daara alxuraan karim bi ñu fi waajal samp imaam yi ñu ngi génn ci daara yi kon daara mooy sotti jàkka doog sotti kon bu ñu amee tey place boo xamante ni bii yàlla xéewale nañu palaas boobu suñu xarit suñu sëriñ di suñu soppé suñu lepp muy oustaz Adi ñass war a ñëw fii tey fi xewal gi ci ndimul yalla suñu borom dañ koy sante yalla suñu borom waye dañ nan alhamdullahi rabbil alamin bi yalla sottee si mbëtt gii waa ju tudd Ablaye Ndiaye barab bi tay yor barab ba say bi soobe yalla suñ borom yalla xéewalu ko ku melni mer maire job jóob waxtaan ak mom bañu wara mëna dajj place bi jox ay nit ñu dëkk ci waye sos ci daara lolu sant yalla la li way di ñaan ñu ne ñaan Ablaye yalla na fu mu waye xara ko ak janna ci barke alquranul karim bi ñuy waajal fi, yalla yalla doolu jam ñu leen di dalal nak ci turu sedulaas aliun Badara Ndiaye ki nga xamanteni bi tay tey Ndiass bele moy taw bu goor mo waro yor kaddom wax waye mu ne ma na jël kaddu gi wax ci soppe yi wax ci dekk bi waye wax ci imam yi waye wax tamit ci turu kon yalla yalla gën ñoo jappalé ba ñu mën a wax lu ngeen mën a dégg amee rabbil alamin kon oustaz Hady yaa mbokk yi monsieur le ñu ngi leen di dalal di leen wax jërë ngeen jëfati yal na yàlla gën a jàppale dolli sutura lii ñu naal fii yal na yàlla sottal ak jàmm naalu teraanga la naaru alxuraanul karima yal na ko yàlla sottal waaye na xam ne képp koo xam ne imaam nga ci gox bi kontaan na ci lii bëgg na ci te ñëw na na xam ne képp kuy sëriñ daara ci gox bi kontaan na ci lii bëgg na ci ñëw na waaye sëñ waas nee na ginnaaw bi loolu lépp amee oustaz aadi ñu ngi lay dalal jàmm di naan yàlla li nga fi naan yàlla na ko yàlla sottal bu yi nekk fii yëpp ñëw nañu fii ku fi tudd daara ci département bi di nga tudd daara sëñ Maodo Gaye mu daara alaaji Baye Amad gay Tamba mu ngi ni toog sa xarit sa toppe ku fi tudd daara di nga daar Daara Oustaz Kébé di président Daara yëpp ci département bi ku fi tudd Daara di nga tudd Imaam Kamisu Diallo parce que président Daara yi mbët fii fii ci ci commune bii mooy seen président kon yàlla ya def jàmm kon ñëpp teew nañ ñu ngi ànd ak délégation boobu ñëw teew ngir sargal la jàppale la ci bis bi ñaanale la yàlla suñ boroom ngir ka daara ji mën a sotti ak jàmm ku ne ku ne Imaam ne Serigne Serigne jóge fi sori nekk fi ñëpp ñëw nañ. waaye gox bii ñu tudd ci kenn rek mu yóbbaale sëriñ si fi nekk mu di sëriñ Cheikh Mbacke yor fi daara moom it di góor góorlu yàlla yàlla jàppale teew na mu ngi fi waaye na xam ne jigéen ñi dëkk bi ay yaayi daara lañ ñëpp a ngi fi mag ñi ndaw ñi ñëpp a ngi fi ngir ñaan yàlla suñu boroom lii ñuy naal fii ñu am ci mbégte yàlla na ko yàlla sottal kon Oustaz Ady kàddu yi wartu gudd jamonoy koor lañ ne. nan ñaan yalla mu nangul suñu koor waye fangal suñu bakar waye ñu fekk ay déwéni déwén ni ñu ko ubbe ni ñaan yalla ñu dem bo mu pare ñu ñëwaat insha allah def immigration bi yalla yalla nangul ñu kon jërëjëf monsieur maire yalla mi yalla tap sa xol ba nga mo ba nga mo na ba nga mo na teeru usas ali ñew ne ko am place ba mo def dara yalla yalla fay la li rek moy li nit wara xëccu fu ñuy tabaxé juma nga bokku ca fu ñuy tabaxé dara nga bokku ca fu ñu defee lu baax nga bokk ca leneen lu dul lii yaa ngi sànni sa alal denc boo xamante ni bis boo demee fekk ko fa lu dul denc boobu lu denc bee ko gën kon jërëjëf yan yàlla fay leen kon dëkk baa ngo Saadi dëkk baa ngo teeru nañ la dalal nan la dina naa la jàmm yàlla suñu borom yàlla na liy sotteeg jàmm ñu war a mun a fekk imri ñu ngi nuyu mbokk yëpp nag di mbokk daara yëpp oustaz ke bi may wax muy président seen daara ci bi mu ngi sama ginnaaw Ndiaye muy doomu Sudaas mu ngi fële toog imaam yëpp a ngi fi imaam Gorom Trois imaam Bambilor imaam Jaksaaw imaam ñëpp ñu ngi fi ñëpp a teew ñoo def délégation pour ñoo sargale la bis bi incha allah kon yàlla yàlla jàppale yàlla yàlla doolu jàmm doolu xéwal doolu sutura jërë ngeen jëf yàlla yàlla def jàmm. imaam àndoon yëpp mooy ngërëm trois mooy ngërëm deux mooy imaam monsieur le mu ngi fi toog ci ginnaaw kon yàlla yàlla jàppale bëgg nañ yàlla yàlla gën a sottal ko ak jàmm incha allah ñu toogaat fii na alhamdulilahi rabbil alamin wa taala barakaatu rabbil alamin wala aqibatu littaqwa la udwana illa ala zalimin واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله mbokki jullit yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu Cheikh Adi ñu ngi lay nuyu di la ziar Chituru turu sëriñ yi fédération nationale des associations l'école coranique Sénégal ci turu Wan mi nga xam ne moo ne ca ba di ci turu région Dakar ñun ñi yàlla nattoo ñu département Rufisque Cheikh Kamisa jàll mi toog jiite li nga xam ne moom mooy commune Bambilor ñu ngi lay nuyu di la ziar di la ndokkeel bu baax ci munaasaba bi nga xam ne benn munaasaba tolluwu ni waxuma di ko raw di sant di gërëm suñu pap Aliou so Aliou Ka te nga xam ne mooy imaam nekk sàngal kam te nga yebaloon ko ci ñun mu def délégation bu mag am ñu ma àndal ñëw yëgal ñu bés bii bés bii tey am nañ ci lu mat ñeenti conférence waaye dañ doon fii mu mënuñ fi ñàkk a teew ci conférence lañ jóge ñëw fii euh, ñun nag comme ni nga ko xamee ñun la yàlla teg ñu nekk daara yi nga xam ne ñoo nekk ci Sénégal bokk kook yow dégg nañ say limi daara te gis nañ ko gis nañ sa liggéey yal na yàlla barkeel yal na yàlla nangul ñu monsieur le maire ñu ngi lay nuyu di la ziar kàddu gi bi ñu koy joxañ ndoyoon na sëkk kamisa bi mu jëlee kàddu euh, waaye lépp rek jox nit ki cëram la yàlla yàlla yokk ñu yokk leen yokk bépp jullit ñun nag euh, ay dongoy daara lañ ba tey jii dongo daara nag lañ ko xame woon mooy dem liggéeyi ñëw jàng yalwaani tey jii yàlla nattuñu ca daara lañ jóge ñëw fii fekk fi ay kilifa ay kilifay aada buñ ko waxee tey Ndiagne Diop monsieur maire mu ngi fi teew ak ñi mu àndal yépp gis nañ ko ak i aimma yoo xam ne yu limu la ak ñoo xam ne ñii daara ay daara lañ yor ak ñeneen ñoo xam ne ñu ngi ci yeneen i métier maanaam daal dajëb jullit yi la ñuy wax nag lañ waxoon ca suñu daara ja ca sànjara dañ faa dem def fa conférence julli jot amuñu fuñ ko jullee ndax amuñ jakka dëkk bu ñu wax xaw la bañ paree ma ne jël leen ma ñu teg xeeru njëkk tey su ko ñu jox ma tuuti ak yu ñu for wet ga borom tol ba ca ëtt ba maanaam ci digg ba may ñu ñu jël ma may wax bokk na ca la ma waxoon mooy sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne ku tabaxal yàlla ku tabaxal yàlla kër maanaam jàkka bu ne néegu yàlla jàkka lañ ci jugu ju toll ni tàggum picc jàkka ju toll ni fu picc mën a dugg yàlla dina la tabaxal njënd ca biir aljanna ma yëkkati birig teg birig ba di ñetti kër mané kon benn birik ku ko fi indi yàlla dina la tabaxal ñetti njënd ci biir aljanna ma def ko benn euh, vidéo tasaare ko ke njëkk a 300000 la ka ca def 200 2 euh, millions jàkka ja yegg na bu yàgg tey jii man mënuma lenn aw ma dara suma lambon sama pos bu yaakaar naa 300 francs laa ciy fekk te daara ja laa jóge yéen sëriñ daara yi xam ngeen li may wax ab serigne dara la kon djumna 400 francs la damay yalwan ngir yalla parce que tam na ma yalwan man mom la xam damay yalwan ngir yalla te kuma sarax yalla bo ñakati nak ma sarax kuma sarax ci li ndax neegu yalla bi la bëgg tabax man mom la am yeneem te awmako munumako te ay jullit ngeen monsieur le maire monsieur le maire wa gor yow de ken الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودا فمن

والصلاه والسلام على خاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن اتبع بسنه الى يوم الدين مبكي جليدي وكما جرت به العاده بدايه bi isnin wa riddan wa bi ismi al cheikh Mouhamad Hadi Niass habisahullah wa raa li yëkkati kàddu gi gën a yàlla ak jullit di ko dooree ay kàddoom digganteem ak ay mbokki jullitam rawatina ci bis bu mel ni bis bii ak weer wii muy kàddu gi nuyoog lislaam gi làmboo jàmm ak yërmande ak barke di asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bi lañ jottilee nuyób lislaam bu yaatu bi ëmb li ñu fi taxa a daje yëpp mooy fàkk ak sos barab boo xam ne liy jubluwaay bi mooy jëmmal li taxoon yàlla yónni mboolem yonent yi mës yónni muy téeméeri junne ak ñaar fukki junne ak ñeenti junne waaye di fàkk di sos barab bi nga xam ne yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam keroog ba mu wàccee madinatu nawra laata muy jëmmal kër gum dëkkee lu mel ni la njëkk jëmmal mooy fuñ jàngee ak fuñ jaamoo yàlla waaye di fàkk sos ak di jëmmal barab boo xam ne Mawlaay Alaaji Abdoulaye Niass al keroog ba mu wàccee Kaolack ca lew naña seen lam njëkk rek muy jëmmal barab bu mel ni barab bii di barab bu ñuy jàngee waaye barab bu ñuy jaamoo yàlla waaye barab bu ñu tuuree ñaq ngir dundee ngor alhamdulilahi rabbil alamin yal yàlla matal lool te yeggali ko sëriñ bi ñu jiitu tabaarakallaahu yaata nañ ci kàddu yi lool waaye gannaaw bu mu géndee ko la borom xam-xam ba shaahir ba hakim ba waxoon إذا كان جهل الناس مدها تغيهم فليس سوى التعليم لرشد سلم am pénc daa am fu mu toll lu dul jëmbat lu jëm ci jàng ak jàngale du ko defar falaw xiila man yunhidul qawma lil ala isa sa mahyaam la xultu muallim dana am fu am pénc di toll dana am fu ak njaboot di toll ci dundu ak dundin dara mënul leen sé jëlé lu di éducateur te mooy almurabbi al jayyid du ku melni ni Cheikh Mouhamadul Hadi kon nak muallimu abna al bilad tabibuhum yudawi siqam al jëhli wal jahlu musqim ab jangale kat bi sos fak barab bu wara jàngale wara fa faa yare doomi lislaam doomi jullit ñi moom rek mooy seul médecin bi nga xam ne tabaarakallah moo mën a régler am pénc te kooku mooy la Mouhamadul Haadi hafisahullah la raa kon ci turam ak ci kàddoom ak ci ndigalam la ñuy yëkkatee kàddu nuyoo yooyu waaye kàddu yoo xam ne laaxasee ko can ak ngërmaane goo xam ne yàlla rek xam fam dalee waaye yàlla rek moom xam fi fam yem sëriñ bi fi mu toog mbégte rek la fi toogee laataa ngeen di ñëw mbégte fees na ko ndax yéene xol yi dafa jiitu jëfi cër yi moo tax alhamdulillah alhamdulillah mu ngi ndokkeel boppam di ndokkeel mboolem ko fi toog di am yaakaar ci yàlla na fii képp ko fi toog boo fi bayee ko loo fi indaale safaan yàlla jéggal na ko yàlla yàlla def loolu sëriñ bi nag nee na nuyoo yooyu wax dëgg mu ngi siy jiital ki yàlla jiital ci barab bi muy monsieur le maire di monsieur Ngagne Diop di njaati gëm di dalal katam li yeb tabarakallah jaar ci loxom bu jappale ko ci ci anam gu jegg doyo li ci mujj rek moy dembu biñu ñuy déparé ci kër ga wara jëm ci fi la ko doora a nako na ko ah, ngi jëm sa barab de na naa yaakaar ndogu fa lañuy fekk waye alhamdullilah ñi fi nekkoon ñep seen xol sedd na kon monsieur ngañ Diop serigne ne contane xelam dal na ci yow ngi lay ñaanal yalla yan yalla sam la boppam man si ba bi nga yor yan yàlla wartu lako ko te teyel lako ko te yokal lako sam la sam la sa ba jabot sëriñ bi nee ni am na mbégte kontaan te lool ci waa kër Alaaji Abdoulahi Niass ñi nga xam ne tabaarakallaahu teew nañ ci barab bi ñii di ay magam ñii di ay rakkam ñii di ay xaritam ñoo xam ne bu ñu bokkee Alaaji Abdoulahi Niass bokk mbokk gi bokk diine ji bokku maam ji it yàlla dafa def ñu bokkaat muy ku mel ni Cheikh Alioune Badara Niass ñu nii toog da koy seede fu mu nekkul na ñëpp di mbokk la njaay moom mbokk la waaye it xarit la alhamdulilah Cheikh Alioune Badara sëñ leen bu baax di la wàccee sa wàccuwaay wala yàlla wàccee ci barab waaye Cheikh Papa Khalifa Niass moom waxal na ko boppam léegi tabaarakallaa moom tamit yegg si na sëriñ bi ni mu bëggee sax ñu jottile ko kàdd yi ak ni mu bëggee ñu tuddile ko tur yi ak jëmm yi ak liñ fi teewal ak ni mu ko yëgee nit ñi sax yaakaar naa bëggee ko ndax wax dëgg yàlla waxtu mayewul loolu waaye ñëpp nuyu na leen ñëpp sant na leen ñëpp gërëm na leen ñëpp ndokkal na leen ñëpp gis na seeni coono ak seen yitte ak seen yene mi lay jaajëfal di wax yan yalla nangu ta nangul ñu ñep alhamdullilah li ñu sos borom do wax na ma lakum ala tunfiqu fi sabilillah ana lan mo dox seen digeunte ak def ci yoonu yalla ye ya mucc mun walillahi mirasu samawati wal ard ta asmana suuf fi leen tiim ndonul borom bi la tabaaraku taala mo koy mujjé kon amu fi dara li nga ko denk rek بعدين من لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل نيدم بايزون ديمبو أفا درد خيو بي يمك نيا قم دنيو دباتل من أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا كنا والسابقون السابقون أولئك المقربون تيني يني السابقون الحمد لله li yalla wa kullan wa'ada allah husna ñep nak yalla degg na len te dig na len deug na len batay lil ladina ahsanul husna wa ziyada والله بما تحملون خبير كن كون سي ني ليم في جيف اك ليم في يينه دار ام بوتي بروم تي دنا كو فاينت بو الليغ بو كو فاي خول دنا سيد ان شاء الله رب دا فا ام بن صحابه باخ بو تيري ابو طلحه سي لانصار لا بوكون ëppoon ci ñoom alal wala bokkoon si ñëpp fa ëppoon alal te alalam doonoon li gën riis si alali arab muy ay tool yi tàndarma tàndarma ya mu ngi nekk ba mu tëddee bu rey xaaxu riis gum riisoon ak bakken gum bakken tax na yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa daana waaxu di fa dugg di fa yeesal njàpp di fa naan ndox waaye keroog bi aaya wàccee borom bi ne lan tanaalul birra xataa tunfiqu mimma tuhibbuna dafa xëy ñëw si yonent bi sallallahu alayhi xam nga ne li gën a foor sama alal may sama tool bee nga xam ne bu ñëpp làqoo seen néeg nga waaxu duggari fa seen jàpp bis ni tey jël naa ko jébbale ko jox ko borom bi tabaaraka wa taala yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon dafa yéemu si jëf ji rëy ci kanam yàlla boo wax addis naan baxin baxin est-ce que est-ce que loolu yonent bi sallallahu alayhi wax wax wax wax ba pare na ko waaye wa innaha sadda mbooloo bi ñu ngi leen di dalal fii ci mbët di benn dëkk ci biir commune Bambilor bi yàlla def ñu dénk ma ko ñu dénk ma ko ma ànd ci ak samay nawlay conseil ñëw ci bés bii ñu ràññee ci suñu président commission domaniale muy Pape Aliou ñu ràññee ci suñu président commission des finances muy Libaas Ba ñu ràññee ci suñu président de santé muy Mamadou Ka ñu imam Kamisa bu mbët Kamisa bu imam Gora Sarr bu mbët imam góor saar bu mbët ak ñi nga xam ne oustaz Kébé wax na ko mooy ñi nga xam ne ñoo yor daara ci commune bu Bambilor ci teewaay bi sëriñ bi ñu di la xamal ne waa kër maam Limaamu Laay Ablaye Ndoye jóge ku naan kuróon ñëw ànd ak délégation bu mag pour ñëw bokk ak yow bés bi waa kër Serigne Touba si ndigalal Serigne Cheikh Mbacke moom it mu ànd ak waa kër Serigne pour bokk ak yow bés bi kon loolu dafay wane rek diine yi benn la tarixa yi ñoom ñëpp ci yàlla lay jóg mais yàlla def ci benn particularité boo xam ne ku ñuy wax Ibrahima Faye di saltigéwut Bambilor ñi ngeen gis ñu di borom yi ndomba ñëw di ay léwu bokk ak ñun bés bi ñu ràññee ci cànnaar Mamadou si ak Mamadou Ndiaye jóge mët ak Gorom 3 pour bokk ak yow bés bi kon yaakaar naa sëriñ bi yéene ji ñu amoon ci bi mbir mi jóg jaare suñu rakk muy libaas ba yaakaar naa bu lii amee ba ñu xam la ba war a mën a taxawal lii libaas ba bokk si ñi nga xam ne dox nañ ci muy moom muy Pape Alioune Ndiaye mais sëriñ bi Kamisa dafa wax benn wax boo xam ne tey jii yaakaar naa li waroon a jëkk li ñu waroon a jëkk jël ci kàddu moom wax na ko mooy ñaanal suñu waajur wi nga xam ne moom woon barab bii muy Ablaye Ndiaye suñu waajur dafa ñëw sama bureau ànd ak sama nijaay Abdou Aziz njaay na jamono day dox waaye yàlla dafa def tool bi daf ko bëgg a def ay kër mu am yéene def ko ay kër amoon yéene dëkk bi yàlla def bi ñu toppee processus bi ba processus bi laa jeex yàlla moom na ko kon kooku li ñu war a jëkk a def mooy ñaanal ko xam ne yéene mat na kon suñu wayjur suñu bàyyi Ablaye Ndiaye yàlla na dee di noflaayam lépp lu ñu fi def ci wàllu diine yool bu ci nit di am yàlla na ko ci yàlla jox ci barke yonent bi sëriñ bi may gërëm Abdou Aziz Ndiaye mu ngi nii toog te dina jël sax kàddu ndax su doon kuy xàddi xedd na bu yàgg waaye yàlla def muy professionnel ci li muy liggéey ak lu mënti am fépp fu mu war a jaar fépp fu mu war a jaar ba jaar na fa ba yàlla def autorisation de lotir bii ñu am ko kon mën naa la wax sëriñ bi ne fii nga nekk nii tey ñu jox la ko xam nga ne mën nañ ko titre muy titre foncier boo xam ne yow yaa ko moom maam xalifa moo ko moom kon loolu lépp nag dañ koy gërëme Aziz Aziz yàlla na la yàlla fay yàlla na la yàlla fay ndax tey ku dugg fii sa xol sedd na te xol bi sedd li ko def lépp moom jëmm ji la man mii wax de sama dërëm duggul ci poto bu fi tegu fiil bu fi ne wala tali fi am lépp moom Aziz Ndiaye moo ko def kon Aziz yàlla la yàlla fay ngay roy waay nag tey ku dem sàngal kam xam nañu la nga fa def ba nga fay nekk di def lu mel nii lii rek la xam ak jaamu yàlla taalibe Serigne Babacar Sy la kon Aziz jërëjëf di gërëmaat bu baax population mbët li tax ma leen di gërëm mooy lii fenn fu ci ne amoon nañu yéene yóbbu ko fa gorom un la jëkkoon a xool yaakaar naa sëriñ bi xam na li may wax foofa mënul sotti ba yàlla indi lii bi ma xoolee projet bi gis na njariñ la ci secteur bi loolu moo tax ma indi ko fii lu ne nag dégg naa ko ci lu ne mais yàlla rek moo ñu mën a seede ak sëriñ bi xam na nu mu jotee suuf si ndax nag bu nu gisee luy njariñu askan wi te yàqalul askan wi yoon may nanu nu waxtaan ak borom jox ko ko pour mu taxaw fi yoral njaboot bi jàngal suñu njaboot te yaakaar naa doomi mbëtt doomu gorom doomu bambilor doomu jaksaaw doomu Sénégal war a mën a jàng fii xam-xam ci institut boo xam ne deux milliards cinq cent yaakaar naa loolu maire bu ne wax nga ñaan yàlla moom sa commune maire bu ne bëgg sa commune am yéene sa commune yaakaar naa war nga mën a ñaan yàlla institut islamique bu toll nii deux milliards cinq junni yu xale yu góor juróom-ñaar téeméeri xale yu jigéen jàng nasaraan jàng alxuraan jàng métier bu ñu gisee ku ñu ko defal ci commune Bambilor bu dee beneen nit fu nu ko am defaat ko pour askan wi mën koo jariñoo kon sëriñ bi jërëjëf engagement bi commune Bambilor jël bëgguma ñu ne maire bi moo joxe mais commune Bambilor moo war a yëkkati cinquante tonnes ciment joxe ko ak fer ak beto ak suuf pour institut bi pour suñu njaboot bi fi nekk ëllëg bésu tey yéen dinañ juróomi tonnes juróomi tonnes yaa nga nële camion bi gaare ndax nag amuñu lu dul suñu commune ku ñu gis nga jóg pour defar suñu commune defar suñu njaboot sëriñ bi lu ñu ci man dinañ ko def loolu daf may permettre sëriñ bi ndax bu ñu amee jàmm ju mel nii ba mën a taxawal lii dañuy sàkku si sa barke ci barke bés bi nga ñaanal réew mi ñaanal njiitu réew mi ñaanal boroom réew mi pour que jàmm ñi gën a yokk ci réew mi ndax bu jàmm amul du ñu talal jaamu yàlla bu jàmm amul du nu tala tabax ay institut ndax loolu lépp ci jàmm lañ ko mën a amee kon si sa barke wayjur si sa barke ci bés bi ñaanalal président de la république yàlla may ko jàmm yéene ji nga xam ne yàlla may na ko ko pour mu liggéey ci réew mi nga ñaanal ko ba mu mën a mottali li mu bëgg liggéey muy njariñu askan wi sëriñ bi bi nga fiy jëkk ñëw bi nga déparé Bambilor tali bu xonq nga doon dugg di dox tey tali bu ñuul bi jógee na gorom 3 ba mu ngi àgg Sébikotane day àgg Bambilor sëriñ bi courant bi bu ëgsee fii réew mi dafa am jàmm te dafa am ku ñu jox réew mi dénk ko ko muy liggéey luy njariñu askan wi kon nañ ko ñaanal te yàlla tax loolu moo di woon kàddu yi ñun dey sëriñ bi commune Bambilor heure boo ñu soxlaa ci li nga xam ne mooy jëmale daara ji kanam man ak conseil municipal bi incha allah dinañu ànd ak yow jàppale la ba ëllëg ñu mën a taxaw na lii nañ ko inauguré pour suñu njaboot te bu fi xësee ba ne ba yomal xeyam fi lay des kon waa mbëtt ma di leen ñaan ngeen teeru gan gu bees dëkk bu ne bu sañoon yokku surtout yokkuwaay bu mel nii soo xoolee ci ginnaaw mille gendarme ñoo am ay kër autorisation bi léegi mu génn muy Sidi Diop kon mbëtt yaakaar naa bokk na ci dëkk yi gën a barkeel ci commune Bambilor kon ñuy gërëmaat bu baax kilifa yi diine yi fi ñëw rawatina nag suñu sëriñ muy El Hadj Malick Gaye di Maodo Gaye Maodo ñu ngi lay gërëm bu baax ñu ngi lay sant ñu ngi lay sant ndax lii dafa am leneen lu mu wanewaat mooy bi sa jur di xàll ci biir àll bi booba fekk na yàlla namoon na lii fekk si ko kon ñu ngi lay gërëm bu baax di gërëmaat bu baax sëñ aat yi sëñ aat yi la ma la waxoon démb rek lépp lu nu mënul def rek lépp lu nu la defalu rek dafa fekk mënunu ko mais lépp loo xam ne soxla nga ko ci commune Bambilor mu war a jóge ci biir conseil municipal bu muy njariñ ci askanu commune Bambilor waatal na incha allah bu boobaa dinañ la ko taxawoo dinañ la ko defal ndax nag liggéey commune bi rek moo ñu ñor wax ji bari na wax ji bari na mais dinaa gërëmaat sëriñ bi Pape mbay coono bu ne daj na ko lu ne dégg na ko ba tey jii sax ba tey bésu tey bi sax ay ndaw dañu taxawoon ne dañuy def ay pancarte ndax njañ dafa jaay suuf si te dara lu ci dëgg ma ne ñun yàlla la ñuy defal du ñu gis projet bu toll nii ci loo xam ne njariñ la si askan wi ñun ñu ciy tergiversé nous sommes otages de personne kenn tënkuñu te kenn duñu tënk te lépp lu ñuy def ci dëgg rek lañ koy teg loolu moo di woon kàddu yi maa ngi jéggaluwaat bu baax sëriñ bi maa ngi lay jéggalu di la gërëmaat bu baax di la sant di santaat bu baax waa dëkk bi lii seen alal la yéen a ko moom seen njaboot ak keneen ak keneen ñoo fii ñëw di jàng mais du ñu wax na gorom Gana Ndiaye la ne du ñu ne déen la ne dañu naan institut maam Khalifa Niass bi nga xam na moo nekk ci dëkk bi ñuy wax mbët yal na barkeel ni maam Khalifa jërë ngeen jëf wasalaam. le premier magistrat de la ville de Bambilor El Hadji Ndiagne Diop Ndiagne wax na ko léegi fi mu tàmbalee foofu lay commencé xam nga ñoom maire yi li tax ñu xaw a lu ñuy def en terme d'aménagement ci wàllu suuf rek dañ naan maire maire yàlla seede ne projet bi bi mu tegoo sama loxo ba léegi du institution bu ma jot bu jógee ci moom ne ma defal lii wala defal la lay jarbaat la ci man gaar xarit la ci man waaye moom xam na nan laay liggéey ñun liggéey dañ ci

parce que gox bi nga xam mom rek fi dess yalla dafa dogal état décidé maintenant ñu organiser suñu espace organisation espace nak bu mu mu dem il faut ñi ko xam ñu jox leen ko parce que réew yi fofu la wara a toll réew li koy defar mooy xam-xam du politique par parlo ku bëgg politique mën nga def politique mais bu ñu waree bu liggéey ci wàllu technique ci wàllu defar ña nga xam ne ñoo ko xam ne ñu leen ko war a jox loolooy dëkk bi yàlla defee ñu démarré lii mu boole ma suma sëriñ bu ma mosaa ne wax ne Aziz affaire bi dafa yéex ma ne ko ah sëriñ bi affaire bi yeggagul de mu ngi nii toog du ma fàtt bu ñu demee ba ci biir mu ne ma daal nañu toog rek xaar ma ne ko suuf dafa xaw a doy waar boo koy liggéey da war a def li nga war a def yépp bu ëllëgee kenn war la dal donc man kenn warul sant ku dul man parce que bu ñu liggéey lii ma jox ko maam Khalifa mbooloo mee ma war a jox àddiyee nag

parce que foofu la jamono toll ñu war a jël ñaari hectare nag jox ko institu islamique loolu aussi ni ko njëriñ waxee di sant su gërëm aussi ki nga xam ne yàlla dogal na bi lépp amee mooy Pape Abdoulaye Ndiaye ba ñu toogee waxtaan la jël kayitu suuf yi jox ma gestu ba yàlla yóbbu ko moo tax ñu tuddee ko cité bi tuddee ko cité Abdoulaye Ndiaye pour delloo ko njukkal yàlla na ko yàlla yërëm deux hectares yi pour institut bi la Il y ay mais amna yenen infrastructure yo xamné ko fi def marché moderne fas yéene ko fi def plateau médical bu yaatu fas nañ ko fi def ba ñi nga xamné ne dañ fi infrastructure instruction mu ci plan autorisé donc liñ fi bëgg def créer cité bu bees wala une nouvelle ville moderne encore une fois ñu ngi sant di gërëm monsieur le maire parce que lépp moom la bu ma duggee bureau ak ñi ma àndal collaborateur mi pap bu ma ñëwee danaa loo loo bëggee rek ma signé lépp jaar yoon nag dara lëndëmul ba autorisation bi génn ba mu nekk fi mu war a nekk tey autorités yu wari waxoon nañ ma dinañ ñëw mais xat-xat yu jamono moo tax donc encore une fois di leen sant di leen gërëm di leen wax dal leen jàmm parce que yéen ñuy fekk ci mais diñ gërëm aussi waa mbët démb ñëw nañ ci village bi dem nañ ci chef de village dem nañ ci saltigué dem nañ ci imam maire moo jox instruction ci mbaaxam jënd lu mat 50 lampes neen la léegi village bu mbëtt yëpp dañ koy électrifié ba nga xam ne mbëtt moom xaw ma lan mais si commune bu mbëtt léegi mooy numéro un <laughs> kon nag suma sëriñ <laughs> donc ci gàttal encore une fois ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di leen ñaanal yàlla li ñuy tàmbali tey ñuy yeggali ko ci alhamdulilahi rabbil alamin ba xale yi président de la république génn fi suba parce que am nañ ci yaakaar bu wér loolu ñëm nag si barke Cheikh Tijani si barke maam Khalifa ñu ngi leen di sant di leen gërëm wasalaam. ci jàpp ba ñu delloo sëriñ ba ñu delloo kooku soxnaam ginnaaw mu fajoo bu wér liir ba mu bàyyi woon xale bi keroog bañ koy seeti xale ba amoon na fukki at ak juróom. wax dëgg yàlla mu ne woon moom plombier la te mënul woon xew-xew bi mu yóbbu ko te bëgg ñëw te mënta ñëw ndax néew doole waaye comme plombier la.

Euh, face à la crise des valeurs qui résulte aujourd'hui de l'échec des théoriciens en éducation. Michel Adignès a choisi ce moment solennel pour démarrer la construction de ce grand projet islamique afin de contribuer à l'éducation de tous ses frères musulmans a contribué aussi au développement et au rayonnement de l'islam, a apporté sa modeste contribution, a aidé aussi à aider l'État dans son rôle régalien d'assurer une éducation pour tous. En effet, ce grand complexe islamique aura une capacité d'accueil de 1700 étudiants, dont 700 filles orienté exclusivement à l'apprentissage du Coran et de la Sunna, avec deux bâtiments dédiés abritant également des dortoirs séparés entre garçons et filles. Cet établissement également a prévu de mettre en œuvre un bloc scientifique destiné à orienter les enfants ou des élèves pour un nombre de 3000 élèves qui seront orientés à l'apprentissage à l'école moderne avec un cursus scolaire qui tient compte de plusieurs langues, l'anglais, le français, l'espagnol et l'arabe. Un appel pour une contribution, ou en nature ou en numéraire, à toutes les bonnes volontés qui croient en l'islam comme la solution pour arrêter ces phénomènes sociaux qui nous, a, qui tous et a balisé la voie pour le culte et le renforcement de la foi en Dieu. À cet effet, Sri Alias associe à ce projet de l'islam pour la première fois, par générosité, pour le partage des bienfaits sur la voie de Dieu, afin de booster ses œuvres déjà réalisées au Sénégal, je rappelle, et en Gambie depuis plus de 30 ans. Je le côtoie depuis plus de 30 ans et je suis témoin populaire de ses œuvres depuis plus de 30 ans. weer wu tedd wi qui lu de lii nga xam ne ñu fi dajale waaye Sayer daf ma won demb bi ñuy wax mune dina ko lak ci lakum anglais euh, lak ko ci lakum tubab mu ne arab dama rek mu ñett gën أيها الإخوة المشاهدون في كل مكان ها نحن اليوم في منطقة ستترك بصماتها في التاريخ الإسلامي في هذه المنطقة من غرب إفريقيا هذه المنطقة التي إن ذكرتنا تذكرنا المدينة النبوية المنورة تلك المدينة التي وجدها النبي صلى الله عليه وسلم يثرب فحولها إلى مدينة منورة بنور الإيمان والعقيدة والعلم فها هو العلامة شيخ الداعية شيخ محمد الهادي نس حفيد العلامة الداعية الشيخ الحاج محمد بن خليفة نس تلك الأسرة التي شهدت لها إفريقيا بل العالم كله بالجهاد في سبيل الله ليحل الحق محل الباطل الديني فقد أبلى في ذلك بلاء حسنا حيث كون آلافا مؤلفة من الشباب الذين بفضل جهوده عرفوا دينهم وعرفوا معنى الحياة وأين يدعون أقدامهم فوق هذه الحياة التي كلها مزلقة فها هو اليوم شيخ محمد الهادي نصر امام مشروع عملاق وهو مشروع انشاء مجمع اسلامي في هذه المدينه في هذه البقعه التي ان شاء الله ستتحول الى مدينه منوره منطقه معهد مجمع يسع ل 1700 طالب وطالبة مجمع يشمل في طياته جامعا كبيرا ومستشفى وملعبا للرياضة ومدرسة ثانوية ومعقلا لتوجيه المنجرفين الشباب المنحرف المنجرف كل ذلك كل أولئك يجدون حلا لهذه المشكلة في هذا المشروع العملاق ولكن هذا المشروع جاء ليحل مشكلة كبيرة وهي مشكلة مواصلة الدراسات في المنطقة الإفريقية الغربية لا سيما فأمام فهذا المعهد مخول بربي من دمنا دي فيلاج scientifique maam xalifa ñas waaye village ba maanaam dëkk boo xam ne boo fa ne saraax rek xam-xam ubbeeku na ci sa kanam réer dañ na ci sa kanam village boo xam ne boo ci duggee rek xam fooy teg sa tànk ba nekk citoyen bu baax waaye xam fooy teg sa tànk ba nekk jullit bu baax dafay dal di ubbeeku loolu laa jàpp mooy projet bi nga xam ne moom la. Serigne Adi taxawal fii waaye itam ñu sant waa Ansar ñi may tuddee waa Ansar nag bu fekkente ne fii ma Madinal Munawwara laa ko tuddee waa Ansar yooyu ñu ngi leen di sant ñooy mooy ngañ Diop ak ñëpp ñu nga xam ne taxaw na ci ginnaaw ginnaawam taxaw nañ ci ginnaawam moo xam autorité moo xam population yéen yéen a représenté al ansar ginaaw bi ngay xamantene ñi walisi représenter nañu muhajiron pour bërepp bi wara nek al madina nabawiyya al munawwara ñuy sante ñu leen di sante bu baaxa baax ndax amna no xamne bu ngeen ko xate wala amna no xamne bu ngeen ko xatalé won bu boba xamna ci adi jiko jo xamne mom lu jafe rek lu téng rek mu mu bàyyi ko mu mu bàyyi bàyyi ko dem seeti ji yàlla feneen waaye daf mu wóor ne dafa gis ci yéen yaatal ak yaatu moo tax mu ñëw yësal gëléemam fii di roy yonente bi ci la mu yësalee gëléemam woon ci Madinal Munawwara ñu leen di sant bu baax a baax yéen waa ansaar di leen gërëm waaye itam di wax ci àddi loo xam ne fii ba déwén di ko nangu wax ci boppam waaye man maay force rek xëtt baaraas rek wax ko mooy ne bu fekkonte ne tey maam Khalifa Niass dafa ñëw bu fekkonte ne tey El Hadji Abdoulaye dafa ñëw bu fekkonte ne tey maam Borom tuubaa dafa ñëw bu fekkonte ne tey maam El Hadji Malick dafa ñëw continuer ngay lim liste boobu ba kilifa yi fi nekk yépp sës ci El Hadji Omar Foutiyou Tall ak ñi ko féetoo ginnaaw ñooñu ñëpp bu fi bu ñu ñëwoon tey. doon seet li fi sët yi nekkee bu boobaa day yow haadi bokk nga ci ñi nga xam ne bu ñu ñëwee ba sës ci yow ne ah yow seet loo def bu boobaa la nga def boo leen ko waxee soo watul dañuy dal dëpp rek ne euh, déeti xoolaatuma yëfu keneen yow doy nga ci euh, suñu xel dal dañuy continuer ci suñu tëraay. wallaay bu leen ko mu doy. sëñ Keba nee bu leen ko waxee mu doy. ndax gisaguma ci ñoom. ndax nee na gisagul ci ñoom. ku def juróom benn fukki daara. juróom benn fukki daara. ak ñett yoo xam ne taxawal nga ko. yombul ñaar fukki juma ci biir senegal ak juróom-ñaar. yombul fu ne nga teg fa nit di fa jàngale diine di fa jiite. loolu nekk loo xam ne dafay sotteeku ci toolu kilifa yooyu nga xam ne euh, tudde naa leen te lii rek lañ leen di jàppale képp kuy wax ne bu ma fekkoon maam borom Touba. bu ma fekkoon maam Cheikh Sidil Hadji Malick bu ma fekkoon maam Khalifa Niass bu ma fekkoon maam El Hadji Abdoulaye Niass fekkee nga leen ni nga leen di fekkee mooy nga continuer li ñu fi bàyyi woon Serigne Adi moom loolu la def métier li muy def leblewu ci fayu ci bor te li ko firndeel bu fekkoonte ne nitu leble la wala nitu fay bor la bu boobaa du am juróom-ñaari fan ci Walfadjri Sidi Lamine Niass ne ko demal wuti ji feneen parce que lii loolu xew fi waaye boo gisee Sidi tegoon ko fi mu ko teg joxoon ko li mu ko jox wóolu ko wóolu kóolu te gi mu ko wóolu li mu gis ci moom la parce que di dafa nekkoon koo xam ne dafa mën a détecter ay personnalité dafay détecter ci yow loo xam ne détecté wuloo ko ci sa bopp. loolu la teeloon trouvé ci Serigne Adi Niass mii moo tax mu teg ko ci buntu waxukaayu Sénégal waxukaay boo xam ne bu waxee Sénégal yëpp dégg leen te yaakaar naa juumul ci loolu moom moom El Hadji Sidi Lamine kon tey ci turu ki nga xam ne moo fa wuutu El Hadj Sidi Lamine Niass di Cheikh Mouhamadul Hafiz ñas ci turam ñu ngi gërëm sëriñ aadi ndax nekkinam foofu ci Walfadjri waaye ci turam ñu ngi gërëm sëriñ aadi ci service bi nga xam ne mu ngi koy defal la nation sénégalaise waxuma Sénégal rek sax waaye àdduna bi yëpp ci turu Cheikh Mouhamadul Hafiz Niass boobu ak mboolem ñu nekk ci groupe Walfadjri bi ñu ngi encouragé Serigne Adi ci projet yi nga xam ne exécuté na ko ak projet bi nga xam ne mu ngi ci kanamam mu nekk loo xam ne lu rëy la dañu ne ñaari milliards ñaari milliards ak lu topp waaye yàlla am na ñett yàlla am na ñeent yaakaar naa juróom-ñeent sax yàlla am na ko yàlla moo moo ko am nag yàlla na ko fi def mu nekk milliards ay milliards barke ay milliards xam-xam. ba ñu toogaat fii di ko inauguré waaye ñu dem bàyyi ko fi mu continuer nekk loo xam ne dafay gindi dindi ab ci Afrique dindi ab ci àdduna bi dindi ab ci Sénégal kàddu yi daal lañu ñu ne woon dinañu ñëw ñu sànni ko fii ci ay casquettes yu wuute mu bokk ci représenté fi groupe Walfadjri waaye itam représenté fi suñu bopp en tant que koo xam ne yàgg na ànd ak aadi te xam lu njëriñ li mu amal réew mi li ñu fi tudde yëpp képp ku fi defoon benn ci yooyu rek ñu ne a ah, baax na yow kay yow kay per euh, sa jamono ji sa dund gi jar na ko dund boo xam ne taxawal nga ci juróom benn fukki euh, daara ak euh, ñett doy na loo xam ne jàkk yi nombre jàkk yi ñu wax doy na rawatina nag mun naa laat yeneen naat yu toll nii kon Serigne Adi Niass yaa ngi ci yoon wi ñu ngi lay encouragé nga continuer ci bu baax a baax te toujours daf ñuy wax ben mbind mo xamné ne yaakaar génération bi nga xamné bëgg nañu jàppal l'islam war nañ ko bàyyi xel adi da fay faral di wax ne ñu bari dañuy tok di xaar moy te moy daf la wara dab da ngay dox di dem moy fekk la waye ñu bari tay seen capacité demul ndax dañ na ah man de aw nga tok rek aw moy ma tok nga tok rek bu ko defé ren ba déwén nga tok rek te fekk xeyna bo doon waxu moyen dab la kon lolou war na nek leçon bo xamne war nañ ko jël diko appliquer bu baax a baax ñu sante ñep gërëm ñep ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla fay leen tànk yi ngeen ñëwé ak tànk yi ngeen dello yàlla euh def kep ku fi def ak ku fi deful yàlla na leen yàlla boole ñom ñe fay leen yoonu ki def ñu sante wa dëkk bi wax leen ne jazakumullahu khairan wa kafaakum charran ولا لقيتم ما بقيتم درا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dina ilimaani jàkk yi di nuyu ji ñoom ñooñu ñooy ambassadeur yàlla ci neena dina ji ñom ñoo ci nek di ambassadeur yàlla yi ñooy ñi koy jàngale ak ñi koy jiite muy ñi koy jàngale ak ñi koy ñoy ñooy kuutaayu sayduna muhammad ci xeet wi ñooy kuutaayu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam ci xeet wi kon mang leen ci nuyoo bi. ne kon nuyoo bobu muy yonne ñi fi nek yeb day ñoñu la ci jital japp na ne ñoñ ñëpp su ma tuddee sëñ Maodo Gaye. jàpp na ne ñi mu tuddu ni ñëpp bu tuddé sëñ mawda gay imam Kamisi Soxo. tuddu Imam Kamisi Soxo. tuddu imam Raati bu mbeut ti tuddu tamit imam Raati bu mbeut ak ci jité walu njangam alquran fi ci Mbambilor. ak ki jiitu wàllu njàngam alxuraan fii ci Mbambilor. dugal naa ñoom ñëpp. nee su boobaa day nuyoo bi lambee ne leen ñoom ñëpp. ñaareele suñu nuyoo kilifa gi yàlla dénk gox bi. ñaareele ci kilifa gi yàlla dénk gox bi. di monsieur ngañ Diop. muy monsieur Ngagne Diop. kilifa goo xam ne gu laa biir la. di kilifa goo xam ne gu laa biir la. waaye gu yaatu la. waaye gu yaatu la it. mën nañoo seede ci moom tamit ne ku rafet xol. nee na mën nañoo seede it ci moom ne ku rafet xol la. koo xam ne tey lii lépp gannaaw yàlla. koo xam ne gannaaw yàlla lii lépp. tey mi ngi bàyyeekoo ci moom. tey jii mi ngi bàyyeekoo ci moom. ngir yéeme gox bi. ngir yéeme gox bi. développement boo xam ne. développement boo xam ne. diine ak xam-xam moo koy gunge. ak xam moo koy gunge. kon moom ñu ngi koy sant di ko gërëm. nee na jëf jooju tax na ñu ngi koy beral cant ak ngërmande. ak mboolem ñu ko jàppale ci mairie bi. ak mboolem ñu koy jàppale ci mairie bi. lim seen tur ñoom ñëpp. te mu lim seen tur léegi ñoom ñëpp. turu xalifa bi ñu ngi koy nuyu. nee na ñu ngi lay nuyu ci tëri xalifa bi Cheikh Ahmad Tidiane. di turu famille bi yëpp. di la nuyu tamit ci turu famille bi yëpp. ñaan yàlla mi nga xam ne moo mën a jàppale yàlla na la yàlla jàppale. di ñaan yëkkati seen dossier yi jox ko ko. famille bi di famille Baye Alhaji Abdoulaye Ndiaye yëkkati dossier yi teg ko ci loxoom. te yàkkamtiwul xaddiwul. te yàkkamtiwul benn yoon xaddiwul. lenn lu nekk ci yoon la koy teg. lenn lu nekk mu teg ko ci yoon. ba yàlla may ko tey résultat bii mu am tey. ba yàlla may ko résultat bu leer bii mu am tey. nga xam ne tey kayit yëpp dafa war a génn incha allah ci titre foncier. nga xam ne kayit yëpp teg na ci yoon ba nekk ci titre foncier. fi mu war a jaar yëpp jaar na fa. te fi mu war a jaar yëpp rek jaar na fa. te lépp taxawaayam la. te lépp taxawaayam la. kon Abdoul Aziz yal na sëriñ bi ne mi ngi ñaan yal na la yàlla jàppale. maa ngi sant di gërëm. ne mi ngi sant di gërëm. ñi nga xam ne dañoo bàyyeekoo ci ay gox yu fasante. ñi xam ne dañoo bàyyeekoo ci ay gox yu fasante ko. ci diggante Sénégal ak Gambie. ci diggante Sénégal ak Gambie. ak ñi bàyyeekoo ci biir dëkk bi di Ndakaaru. ak ñi bàyyeekoo ci biir dëkk bii di Ndakaaru. ku ne xam ne ñëw fii taxul mu yomb. ku ne xam ne ñëw ci barab bi yombul de. ñi ñëw fi ñëpp ñi ci ëpp tey lañ fi door a ñëw. ñi fi ñëw ñi ñi ci gën a bëri yëpp tey lañ door a ñëw. xamuñu woon sax fii mooy fan. xamuñu woon sax fii moo nekk di fan. jànkuwante ak seeni coono. waaye terewul jànkuwante nañu ak seeni coono. ak ni gi mel. ak ni gi mel. ak ni soxla yi bëree. ak ni soxla yi bëree. ba tax mbooloo mu toll nii ñëw fi. ba tax mbooloo mu toll nii ñëw fi. te kenn ku ci nekk sa xol moo fi jiitu sa jëmm. te kenn ku nekk sa xol moo fi jiitu sa jëmm. yal nañu leen yàlla ngi ñaan ne yal nañu leen yàlla fayal. dëkk bu nekk ci dëkk yi. dëkk bu nekk ci dëkk yi. kenn ku ci nekk rek. kenn ko ci nekk. dajale nga sa man-man. dajale nga sa man-man. ngir jàpp ci liggéey bii. ngir jàpp ci liggéey bi di liggéeyab yàlla. di liggéeyab yàlla. fas yéenee jëmmal ko. fas yéenee jëmmal ko. mu mel ni kon danañ teg pose première pierre bi ci kanam. mu mel ni kon ci kanam danañu teg danañu pose première pierre bi. wane ne liggéey bi moom démarré na. wane ne liggéey bi démarré na. moom bu yàgg commencé woon nañ mool yi sax. ndax ne bu yàgg moom mii ci itam commencé woon na mool yi. ba daanaka mool nañ fi lu jege ñaar fukki ton ba daanaka mool nañ fi lu jege ñaar fukki tonnes. ñaari équipe yoo xam ne dañoo ñëw dëkk fii di liggéey. jël na ñaari équipe yoo xam ne daf leen logé fii ñu nekk ci liggéeyu mool boobu la. kartanal yàlla noonu la ñuy continuer tamit commencé bâtiment yi. ne ci kartanal yàlla noonu la ñuy commencé it bâtiment yi. fas yéene njëkk a tabax jànguwaay bi ba pare. fas yéene njëkk a taxaw jànguwaay ba pare. jumaa ji door a ñëw jumaa hôpital bi door a hôpital bi door a franco arab bi door ñew franco arabe bi soog a ba yim wara and ak yépp pour mo compléter nek complexe islamique africain imam Khalifa Niass mën a mat waaye lan ciy jiital ci liggéey bi dal moy place way bi balaa yàgg tamit dañ fi gas benn forage balaa yàggit ne dañ fi gas ben forage inshallah ci kartanal yalla inshallah ci kartanal yalla war a gas wax nañ ba juboo jox nañ ko avance am. ki ko war a gas wax naa moom ba juboo jox nañ ko avance am. li des rek mooy mu jël ay matériel am ñëw tàmbali. li des mooy ñëw ak matériel am tàmbali liggéey bi. bu paree waxuma daara ji. nee bu paree waxul daara ji de. waaye gox bi yëpp mën nañoo jëriñoo ndox mi. waaye gox bi yëpp mën nañoo jëriñoo ndox mi. ñëpp ñu bokk ko. ñun ñëpp rek ñu bokk ko. ñi fi dëkkee yëpp. ñi fi dëkkee yëpp. loolu nañ xam ne tàmbali nañ liggéey bi. nee kon nañ xam ne loolu tàmbali nañ liggéey bi. moom na. liggéey bi moom tàmbali na. ngi ñaan ci doole yàlla ak kartanam. ne mi ngi ñaan ci doole yàlla ak kartanam. yàlla bum taxaw. yàlla bu mu taxaw amiin amiin. ba ñu ba ñu dajeewaat fii. ba keroog ñi fay dajeewaat di ko intégré. lépp rek nañ ko bëggee woon mel na ko. nga xam ne lépp ni nga ko bëggee woon dana fekk mu mel ko. montant bi bëri na bëriwul. ne montant bi bëri na waaye boo xoolee bëriwul. na ci boo ko tegee ci ab jaam ndax jaam dafa ñàkk. ne boo ko tegee ci kaw jaam nag ak ñàkkam tax na mu di ko bërilu. ak ak lompañam. ak ak lompañam. di jaamam yàlla mooy ñun ñi nekk di ay jaam yàlla. waaye boo jëlee lépp delloo ko yàlla. waaye boo jëlee lépp delloo ko yàlla mii borom jaam yi. loolu moom lu tuuti la ci moom. lu tuuti lay doon ci moom. nee na mi ngi seede ne xelam dal na ci lool ci liggéey bi. benn tiit. amuñ ci benn tiitaange. amuñ ci benn jaaxle. amuñ ci benn jaaxle. danañ sémbu liggéey bi incha allah. danañ sémbu liggéey bi incha allah. mbooleem ñi fi ñëw tuur seen ñax. gaa yi dem safara buñ duggee moo tax ne gaa yi dem safara buñ demee ba dugg biir safara. safara lu naqaree dugg la. te safara ne lu naqaree dugg la. malaaka yi di leen laaj laaju jaaxle. malaaka yi di leen laaj laaju jaaxle. ne ni safara naqaree dugg. ne waaw ni safara naqaree dugg. yéen lu ngeen doon caaxaanee bay dugg fii. lu ngeen doon caaxaanee bay dugg ñu ne ko ñett yëf rek moo ñu fi dugal. ñett yëf rek moo ñu ci dugal. mooy ñàkk julli. mooy ñàkk julli. ñàkk jël suñu alal def ko ci yoonu yàlla. ñàkk jël suñu alal def ko ci yoonu yàlla. ak daan xuus ci deru góor ñi. ak daan xuus ci deru góor ñi. ku baax rek ñu yàq ko. ku baax rek ñu yàq ko. lii daal moo ñu dugal safara lii daal dañuy tontu su boobaa malaaka yi nañu lii moo ñu dugal safara ne leen maa salakakum fii saqara ne leen maa salakakum fii saqara luñ ca teg luñ ca teg mooy qaalu lam naku qaalu lam naku min al musallin min al musallin ñaareel ba ñaareel ba walam naku nut'imul miskin walam naku nut'imul miskin wa kunna naxuudu ma al xaa'idin wa kunna naxuudu ma al xaa'idin kon nga xam ne lii tax a dem safara kon nga xam ne lii tax a dem safara li la yàlla wërsëgal laaj la ko li la yàlla wërsëgal laaj la ko. nga koy korkor yi di ca nay ba bañ koo dee. ngay korkor yi di ca nay ba bañ koo delloo yàlla. nga dee bàyyi ko fi. nga dee bàyyi ko fi. loolu dana tax a dem safara. loolu dana tax a dem safara. nit ku nekk bu ko malaaka yi jël si mu war a dee. nit ku nekk bu ko malaaka yi jël si mu war a dee. ñu ci bëri. ñu ci bari. dañuy ñaan prolongation. dañuy ñaan ñu defal leen prolongation. ne yow yàlla yokkal ñu. ne yow yàlla yokkal ñu waaye. ñu ma yokkaloon lu mu tuuti tuuti rek. waaye boo ñu yokkaloon lu mu tuuti tuuti. ñu fexee yëkkati dara ci suñu poos. ñu fexee yëkkati dara ci suñu poos. def ko ci sa sa sa liggéey. def ko ci sa liggéey bi. moo tax bu la malaaka yi jël see looy wax. moo tax bu la malaaka yi jël see looy wax. lawlaa axartanii. lawlaa axartanii. ilaa ajalin qariibin. ilaa ajalin qariibin. fa asaddaqa wa akun mina saalihiin yow yàlla xaaral ma ma julli de. mooy nee na du wax ne yow yàlla xaaral ma julli de. waxul xaaral ma aj. waxul it xaaral ma aj de. waxul xaaral ma woor. waxul xaaral ma woor. waaye xaaral ma mën a làmb poos. waaye xaaral ma mën a làmb poos. def ko ci li nga santaane. def ko ci li nga santaane. kon ci ngay yëg ne. kon ci ngay yëg ne. dundale. dundale. ak jël sa alal def ko ci yoonu yàlla. ak jël sa alal def ko ci yoonu yàlla. am na doole lool ci lislaam ne am na doole lool ci lislaam muy infaq muy infaq am am doole la ci lislaam ne infaq muy finance lu am doole ci yoonu lislaam kon nag kon li ñu yàlla sédd li ñu yàlla sédd te moo ko moom dafa ñu ko moomale rek ne yàlla sax ko moom waaye ci mbaaxam daf ñu ko moomale rek soxlaa nañ ko ko jox rek. bu ko soxlaa kon nañ ko ko jox rek. te bàyyi suñu bopp yàlla. te jël suñu bopp nag bàyyee ko ko moom mi ñu moom. ndax nee na alal ji dama leen ciy wuutal. ndax nee na alal ji man yàlla dama leen cee wuutal rek. léegi tey ngeen bàyyee ko fi. te léegi tey ngeen bàyyee koo fi. mbaa moom mu bàyyee koo fi. mbaa moom mu bàyyee koo fi. wa anfiqu mimma jaalakum. nee na wa anfi wa anfiqu mimma jaalakum. mustaxlafiina fiihi mustaxlafiina fiihi. kon loolu nañ ci bàyyi xel. kon loolu nee mat naa bàyyi xel de. kon jërë ngeen jëf mbokk. nee na mi ngi waxati jërë ngeen jëf mbokk yi jëf Jeff yi jeregen Jeff jëf xarit Jeff jërë ngeen jëf soppe yi jërë ngeen jëf soppe yi ngeen kenn amul seen fay kenn amul rek mo am seen fay yalla rek len am seen fay Yalla nañu fayal lu manki ñetti weer lañ fi wote ne lu manki ñetti weer lañu fi wote won ci arène nationale bi ci arène bi fu ne ci aduna bi nit ko fa fu nekk ci aduna bi nit ko fa ñetti weer yi matagul ñetti weer yi matagul woote waat fii. ñu woote waat fii ci procès yàlla bii. ngeen dagg seen yitte yi. ngeen daggaat seen yitte yéen ñëpp. ñëw dajee fi ci mbooloo mu toll. ñëw dajee waat fi ci mbooloo mu toll nii. ak condition yu ñëw bi ni mu jafe. ak condition fii ni mu jafe. ak koor gi. ak koor gi mu tombeel. waaye loolu yëpp yëgu leen ci dara. waaye leen ci dara. dara sababu ko dugul ciofel ak l'islam dara safu ko dara sababu ko ngir ciofel gi ngeen am ci l'islam ndax ciofel ndax ciofel mo lay def lolu metti ba pare mo lay def lolu metti ba pare metti lolu mu gi soppeku banex lu metti lolu mu la def lo mu gi soppeku banex tay li ngeen dajé fi mo ni ngeen dajé fi ak ciono bi ngeen jank wante ba ñew fi yépp monsieur le maire monsieur le maire serigne bi ne jërëjëf Sayar Ñaan suñu xarit. jërëjëf ne suñu xarit Sayar Ñaan. jërëjëf al oustaz Babacar. jërëjëf al oustaz Babacar Thiam. mi wax ci turu mbooloo yëpp. mi wax ci turu mbooloo yëpp. bàyyeekoo ba Amérique di suñu xarit di suñu mbokk. bàyyeekoo ba Amérique di suñu xarit di suñu mbokk. lu mbir mi xat-xat mu ne dana bàyyeekoo Kaolack ñëw fekk. ne tey mu wax ne lu mbir mi xat-xat dana bàyyeekoo Kaolack ñëw teewe si jotaay bi. jërëjëf yàlla ko Seydina Muhammad. haddiyal ko Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa fàttaliku ci darajaam. ko ci darajaam. bu ko defee buñ fi bàyyeekoo. bu ko defee buñ fi bàyyeekoo. ànd ak monsieur le maire. ànd ak monsieur le maire. Serigne Maodo Gaye ak Serigne Maodo Gaye ak ilimaan yi fi ne ak borom xam-xam yi. ak ilimaan yi ak borom xam-xam yi fi nekk ci jataay bi. imaam Tamsir Ndiaye Sama. imaam Tamsir Ndiaye Sama. ñu dem pose première pierre bi. ñu dem pose première pierre bi. buñ fi bàyyeekoo nag. buñ fi bàyyeekoo nag. képp ku dëkk ci dëkk bi. képp ku dëkk ci dëkk bi. bëgg a yeweeku rek. bëgg a yeweeku la. yewi la. ànd ak aajo yu faju. ànd ak aajo yu faju ni mu ko ñaanee. koo xam ne nag da ngaa ñëw fii. koo xam ne da a jàll ba. te bëgg a jàll ca dëkk ba. wala nga ne damay ñibbi. te mun naa am dog fekk ma ci yoon. te mun naa am dog fekk ma ci yoon. defal nañ ndogo yu doy. defal nañ ndogo yu doy. danañ ko andi ba fii. danañ ko andi ba fii. ku yàlla man la fi nga xaar fekkee ko. da nga ci mën a xewlu. bëgg a dem te yàkkamti tamit. macha allah voilà ñu ngi nii si pause bi am na ñu nañu ko Fatiha ak salaatu Fatiha ak benn. Fatiha benn yoon bi salaatu Fatiha ak benn. na ko ñëpp jàng. na ko ñëpp jàng Fatiha benn yoon ak fukki salatu Fatiha ak benn. Fatiha benn yoon ak fukki salatu Fatiha ak benn. yéen tamit yéen si ginnaaw dem leen yéen si ginnaaw yéen a ne. ñoo leen dem leen am na espace tuuti dem. may ma damay filmer sama xaarandi tuuti dëgg daaw. waaw nga xam ne moom mooy xeer. macha allah parce que ñun ñëpp xamante ne sëñ daal ñu ngi déglu 91 point 8 rek la. day ko fi nga xamante ni moom mooy ci diwaan bu Mbambi Sow ba tey. to ko ak programme dara rek bu téré ci auditeurs yi nga xam ne ñoom ñoo ah macha allah toute inauguration waaw effectivement nak wéru ba macha allah am na solo waaw ndax tey ko Well, Gracias.